doors be. avant que may démarrer vidéo bi dama yéen ñi nga xamanteni da ngeen di kifa hip hop di dund hip hop rawatina ñi nga xamanteni fekk nañ lu bari dañuy fekk ñu bari kenn du ci dem manam ta xamoo kan mooy Obi Médecin Obi Médecin yàq na yàgg na si game bi def lu bari billahi yàgg sonal nit ñi seen événement moom la gars yi defal Kopar Express mi ngi nii ñu soxla 5 millions di ñaan de grâce ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan vidéo bi avant ngeen di dem lu ngeen mën a participer ba mat 5 millions ñu dara ngeen dem participer ko muy lien bi ngeen di seet nii pour ngeen dem cliquer si ci Kopar Express pour mën a dimbali ubbi médecin dinaa ko def ci suufu description yi lien yi pour maanaam ngeen mën a dem cliquer foofu pour mën a jàppale ubbi médecin parce que mérito na ko waxuma la 5 millions rek mais ay milliards mérito na ko ndax liggéeyal na hip hop mais lu doy waar loo xamante ni damay bàyyi ngeen seetaan ko après ñu ñëwaat. yow tojal lépp defal lu la neex ñaareel ne taxal nga nekk fii di toj kër lépp nga jàpp lépp ne ngay def di yëpp billahi gumo yalla yalla mo gumo ko yàlla billaahi gumoo yàlla yalla ndaw soosu ngeen gis ci kërëm daf ko takal wujj mais gis ngeen ni mu yàq kër yi toj vitine verre yi jëkkër ji di ko filmer ndax naan ko takal la rek ndax jar na lii mais gaay lii ñaaw na de mais nag li naan ay du yam si bopp borom xooleel li ko jëkkër ji def moom tamit après Aku juntuk. jënd ko mais nañ dem ndaw si toj na vitre yi tas léegi jëkkër ji bañ mu yóbbu bagage yi moom tamit mu yor jaaseem di coor ne ko bagage yu dem man maa ko jënd du dem mais Sénégal léegi fii la toll jigéen takkal lagu ji est-ce que jar na nga yàq ay vitre kër di tasaare war nga ko mën a manifester lu ne tout sauf que di saccager ay kër yoo xamante ne tey jii nii yow fa nga nekkoon ba dala dul dara ak lu jigéen mata di mata di mën ngaa manifester lu ne tout sauf di yàq lii du exemple bu baax parce que au moins euh, defe naa ni ñii seetaan buñ ko gisee tamit ñenn ñi danañ jàpp ne buñ leen takkalee wujju lii la ñu war a def ndax man maa ngi gis ci commentaire yi ñu naan ay comprendre ndaw si fi mu toll ak affaire yooyu non non non kon kooku noonu di wax loolu si commentaire moom ba ma jëkkër noonu lay def gis nañ fi koo xamante ni jëkk taxal na ko wujj mu rey ko soode ko gis nañ ko fii man pour man nit ak lu mën a xew àndal ak sa xel mais image yi dafa ñaaw dafa ñaaw trop xëy na peut-être euh, jëkkër ji ku bañ coow la wala leneen mais bu doon ñeneen ñi nga xam ne moo maanaam tolloo nañ taxawaay lii lu si am te demee laa ci kër gi est-ce que am na ay ay ay doomam yu fa nekk wala ñoo xam ni ñu ngi doon bàyyi ndaw si muy toj fii ci di beneen bi si tamit ku góor gi am fullaam ni ko doon te demale nii man tamit dama yàq bagage yi yàq yàq ñoom ñëpp ku nekk di yàq kenn tanewu sa morom kenn tanewu sa morom lii kaala boo xamante ni vraiment man euh, lu may ñaawloo la ndax lu si mën di xaw ëllëg Euh, am na ndaw ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan te ndaw ñoo ngi di seetaan ëllëg mën nañoo jàpp ne li ndaw si def baax na góor ñi tamit mën nañoo jàpp ne tamit li ndaw si def bu ko defee nii nga ko war a fay alors que du noonu pour man yii am na ndaw si def na léegi ndax ba pare damay dem si yoon damay dem si yoon ndax yoon am na ñu lijjanti ko ndax yàq baaxul yàq baaxul rawatina li nga xamante ni nii nii nii nii image yi dafa dafa dafa ñaaw kon xale yu jigéen yi Euh, lu ngeen bañ wujj wujj wujj wujj ànd leen ak seen xel te bañ a nekk fii nii di def loo xamante ni vraiment lu ne mën na leen see fekk lii de topp seen njaboot ndax ëllëg image yi si des ngeen am si doom ñu gis ne gis nga sa yaay duñ ko takkale wuj gi nii la def sa papa yàq bagage ak affaire yooyu noonu vraiment c'est di n'importe quoi gars yéen tamit seen réaction naka ngeen gisee affaire yi ñu mu demee nii ndaw si yàq kër yi fii jëkkër ji ñëw tamit yàqaat yi seen commentaire te boo leen commentaire pare ñu doog a dugg ci chaîne bi ngeen abonné te boo leen abonné pare ngeen bës seen cloche notification ba vidéo bu ñu mënti dugal ngeen.